ci dernier réglage yi lañ toll ah, parce que li ci ëppoon solo yëpp daanaka def nañ ko depuis démb donc bu fekkee fans club yi la li ci ëpp te ñuy déparé ci seeni zone seen ticket ak seen i dem na ak seeni i t-shirt dem na au niveau local fii daanaka li ci ëppoon solo def nañ ko dernier réglage yi mooy ñi mujjeewul am ticket ñi ngi coordonné maintenant ak organisateur bi pour mu envoyé ñu beneen lot de billets pour ñu mun ko jox ñi nga xam ni mooy dernière person yi nga xam ne ñi ngi ñëw pour bëgg préparer wu dem stade soutenir seen mbër. kon yaakaar ngeen le pari de la mobilisation moom là on est certain que gagné nañ ko incha allah fii ci kanam tuuti xëj na bu leen yàlla dimbalee ngeen nekk fi ba ci kanam départ bi fii ci rond ngeen gis le nombre de véhicules bi ñuy en place. moto yi ñuy àndal donc ce sera incha allah une très forte mobilisation waa yéen jamono ji tey ban sentiment ngeen di am a bëre est-ce que am ngeen satisfaction absolument donc ñëpp ñi nga xamante ni c'est des connaisseurs de ñuy xool athlète gis nañu il a une forme olympienne il s'est très bien entraîné ñun ci suñu wàll bopp suñu xel dal na ci état de forme am donc li ci des mooy ñaanal ko yàlla rek parce que ndam yàllaa koy joxe. Mais su fekkee que c'est par rapport à sa préparation, vraiment, il a fait une préparation exempte de tout reproche. mu war a bëri ak un jeune futé est-ce que lan lan ngeen koy yebee rek euh, ku nekk TADF da nga am sa fort. ñaata mbër la fi daan ku daan presque seize personnes kenn ku nekk bi nga ko daanee bokkul ak sa morom kon gars yi bi ñuy wax moom mooy loolu. xam nga ñu nekk moom waaw amul problème d'accord nangu nañ moo taxit nangu nañ bu ñëwee dinañ xam ne ñu ngi doog am combat nangu nañ am benn problème. waaw ñu ngi ci presque léegi midi jot ana tey làmb dafa am beneen ruq bu mooy loolu parce que làmb dafa am nu mu demee dafa am beneen ruq tey waaw lii ngeen gis rek mais am leen loo xam ne moom moom mooy loolu da nga wax ni dafa am nu mu demee beneen boor. waaw comme ñoom ñoom fans club yeeg supporters yi la yor. waaw ni xam nga xam nga xam nga xam nga làmb boo gisee mu demoon léegi dafa bëri ay secret xam nga gis nii mais am na leneen lu des mais bu demee stade da gis mobilisation bu tàkk boo xam ne waa Guédiawaye pare nañ bilaay walaay talaay bu demee di xam ne ñëpp pare maa la wax loolu. lan ngay wax coach Boy aw ma lu may wax moom yàlla aw ma lu may wax ak moom. aw ma leneen lu may wax ak moom nee na sax avant mu bëri aw ma lu may wax moom ma lu may wax moom moom intéressé wu ma sax quoi man li ma intéressé mooy sama ma lu may wax ak moom li mu koy jàmm defal ñu jàmm ma dem moom jàpp ko daan ko ñibbi amul leen lu may wax ak moom baax na yàggatul ay minutes moo ci des. kon benn problème waaw mooy loolu rek mu xala Pikine ak Guédiawaye benn la xam nga Pikine mais Guédiawaye actuellement moom ak Pikine ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu jàmm képp kuy dem boo fa yóbbu boo bëggee jàmm yàlla defal jàmm boo bëggul jàmm tamit ñii dem ñëpp jàmm daal la ñuy ñaan dem yóbbu si jàmm demaat jàmm incha rabbi drapeau bi la ñuy jël yóbbu rek delloo si waat ko amul benn problème dem daane boo ñoo ñëwaat incha allah rabi merci gars